yéenekaay yi coow laa ngi ni kurru jiixi jaaxa gi am na ci diggante kii di président Ousmane Sonko ak Tabaski gi nga xam ne gaa ñi ñu bari ñu ngi koy jàpp ni war na koo mën a defee ci këram loolee nag am na information yoo xam ne wadd na ci ci ngoon gaa yi nag ñi ngi jaaba jonge information yi yu ci bari nag gaa koy doxal waaye loolee dese naa wér bu baax a baax information yu yi nga xam ne ah, benn par benn lañ leen koy teqantale moom lañ leen indil ngir ngeen mën a xam lan moo xam xew ah, ci ki nga xam ne mooy président Ousmane Sonko ah, di ku sell kii information yooyu lenn la rek maanaam ñi nga xam ni ñoo doon ceytu lu jëm ci wàllu euh, lii di maanaam ak euh, mbiram nga xam ne bañ ko attee ba tey ji euh, kii di Ismaïla Madior Fall yëkkati woon ay kàddu di wax ne gone gi dëkk fële ci cité kër góor gi bu ngeen gisee ba léegi jigéewuñ ko laalu laaluñu ko ndax dañuy doxal yoon yoon woowee nag moo dogalagul moom këyit wi nga xam ne war naa génn bu ko defee ñu man ko koo notifié ni ko yow kat nangam ak nangam nga def nangam ak nangam war ngaa wuy si wala déet këyit woowee jotagul nag jaaba jonge gi bari woon na ci lool waaye këyit woowee nag daanaka këyit woowee nag mooy doora ci ko nga xam ne daanaka gaañi fi mu toll nii la ca nekk dëgg ci ay mbir ñaari objectif rek la mën a doon benn bi nga xam ne moo ci jub njiitu mooy bi nga xam ne boo fekkente ni kayit wi daa génn ñu war a jàpp ki nga xam ne mooy président Ousmane Sonko xamal ko ni ko kayit nag génn na woo xam ne dañuy wane ni da nga war a dem tëdd ñaari at kaso gaañi du ñu ñëw di ko coppati di ko jël naan ko dañ lay yóbbu kaso ci premier objectif bi non dañ koy jox kayit wi mu daal di koy jàngal boppam xool li ci ne li ci ne mooy man mii di président Ousmane Sonko bàyyi nan ma dara toppiwul ma ko wala man mii di Ousmane Sonko woo naan ma ma dem fële nga xam ni moo nekk tëdd ñaari at yi ma war a tëdd bu ko defee mu dox ak moom gaa di ànd ak gaay ci teew ba kanam dem tëdd li muy tëdd bu fekkente ne looloo na ci kayit bi waaye bu fekkente ne loolee lépp nag maanaam nanguwul loolu te gaay yi xam ne atte nañ ko tayit kàddu yooye nga xam ne moom la kayit bi andi la mu génnee mooy ñu daal di koy andi boo boobaa nag ci lañ koy may euh, bu fekkee ñëwul après gaay yi daal di koy jël euh, doon ko yóbbu loolu il faut mu leer nit ñi waaye nag aw kayit du génn rek gaay yi dem jàpp kii di ku sell gi di koy andi ndax loolee man nanoo salfaañe li nga xam ne mooy àq ak yelleefam ah, boobaa ah, dana nekk leneen lu bokkut ak li nga xam ne ah, moom lañ doon si kon loolee na ko ñëpp xam ne moom mii di ku sell gi premier objectif këyit yi bu ko xoolee li ci ne loolu lay appliqué bu dee dañ ko bàyyi mu dem mu appliqué bu dee dañ ko woo daanaka mu dox ak boppam dem loole tamit lu ngeen war a xam la gars yi jërë ngeen jëf yeneen information ci kanam bu leen fàtte abonné